di sant yàlla di julli ci yonent bi di ñaanal nag euh, waa Sénégal ñu am jàmm parce que jàmm moom mooy tax ñu def activité sportive jàmm moom mooy tax ñu mën a dund te kenn du am lu la jaxal bi nga xamante ne président de la république son excellence Macky jël na ndogal ne démb journée day national la woon pour ñu ñaanal ñi nga xamante ne dañu loru génn àdduna ci yëngatu yi fi amoon ci fan yi ñuy ñaan yàlla bu loolu amati ñu jiital Sénégal te bañ jiital intérêt personnel su ko defee ñun ñëpp dinañ mën a ànd joxante la ko liggéey pour njëriñu Sénégal waaye waxtu bi loolu di am am na suñu mbokk yoo xamante ne ay dirigeants sportifs lañu yàlla jël leen mën nañ ci jël ko tudd Mamadou Diallo waaye mën nañ jël ku ràññeeku muy président Sport Boule Gazan Ezidine ñu tudd gën ko xam ci gaz yàlla jël ko ñu koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana xare ko ñëpp ñi nga xamante ne génn nañu àdduna ñi gaañu yàlla eh, wëral leen kilifa réew mi jël décision ñu alléger li nga xamante ne moom mooy couvre-feu bi waaye ñu jëm ci le 20 le 19 à minuit muy jeexal li ñuy tuddee état d'urgence wala état de catastrophe bi nga xamante ne moom moo fi am loolu bu jeexee yeneen i taxawaay dafa war a am taxawaay bi war a am mooy dinañu fexe ba nga xamante ne nit ñi dinañu mën a dellu nag seetaan yi li nga xamante mooy jongante yi wàllu tàggat yaram loolu bu ñu ko waxee làmb ji dina ci gis boppam mais yeneen discipline yi dinañ ci gis seen bopp waaye li ñuy ñaan kilifa yi ñi nga xamante ne ay kilifa lañ te ñu jiitee tàggat yaram ci réew mi comité olympique ak fédération yi dinañu gën a waxtaan ba ñu xool fépp fu ay nit ñu bari di daje nu ñu baree bari it war nañoo li nga xamante observer mesure barrière yi mooy il faut ñuy dandante ci mètre lu mu tuuti tuuti il faut ñuy takk masque il faut ñu am li ñuy raxasee loxo yi di xool température yi loolu bu ñu ko defee defe naa ne làmb dana mën a am leneen dana mën a am ci anam yi nga xamante ne noonu la daan amee te lor du ci am loolu lu am am solo la ñu koy souligner di gërëm nag ñi nga xamante ne commencé woon nañ huis clos yi te di ko def ci anam bi ñu ko waxee woon loolu lépp nag dinañ ko gën a càmbar fii ak le 19 su ko defee nit ñi mën a dellu ci jàmm dellu ci li nga xamante ne mooy jongante leneen li nga xamante ne bëgg nañu ko wax mooy ci wàllu tàggat yaram Sénégal tey ci waxtu wi ñu toll taxaw na ci place boo xamante ne ba Sénégal nekkee Sénégal ba tey mosu faa taxaw ci wàllu football. tey jii ñuy wax ak yéen président fédération sénégalaise de football muy maître Augustin Senghor. taxaw na nekk ci li nga xamante ne moom mooy premier vice président mooy deuxième personnalité du football africain loolu nag bu amee ci xereñu fédération la ci profilu président Senghor la waaye ci jàppandalu président de la république président Macky jox instruction gouvernement am jàppale ko ne ko na nga dem ci compétition yooyu waaye deme ci pour defar pour dajale bañ ci dem pour que bu paree mu am ay cassure ba ñu ciy doxit xalaat nañu ci ci fulla ak fayda ak xarañ bañ demee ba xamante ni dañu war a waxtaan nangu nañ waxtaan wi bañ waxtaanee it li ñu ci am di nga gis nag ñu jàpp ne comme président lañ bëggoon te yegguñu fa mun nañ ko gisee mun nañ leen ko nangul waaye li ñu war a jàpp mooy fu dara newul boo fa defee dara war ngaa bég ci la nga fa def tey c'est la première fois Sénégal di nekk candidat pour jiite kuréel gi nga xam ne mooy gere football bi ci Afrique ci xeex bi ñu njëkk sumb ñooy deuxième personnalité loolu lu ama am solo la loo xamante ne c'est une grande première pour le football sénégalais. loolu nag li ko waral mooy liggéey bu rëy bi fédération di def ci réew mi ak fi mu yóbbu football mais aussi jàppandalu réew mi surtout ku ko jiite le président de la république Macky Sall kon dañuy féliciter Augustin Senghor di féliciter l'ensemble des membres de la fédération di féliciter l'ensemble des sportifs la presse sportive ak ñëpp ñi ci jàpp. parce que candidature Sénégal la woon defe naa ne ku tekkiwul lu bari bu ngeen demee ci négociation duñ la jox dayo bu toll ni nga xamante ne moom la président Augustin Senghor yore fii ñu toll ni li nga xamante ne nag mën nañ ko ci teg te mu am solo moom mooy euh, fii ñu jëm fii ñu jëm yolomal am na pour que nit ñi dellu ci li nga xamante ne mooy infrastructure sportive yi waaye nag du doon ñaax fàttali lay doon parce que ñi jiite sportu Sénégal man ministre de sports am na mbégte ci ñoom acteurs sportifs yi am naa mbégte ci ñoom parce que taxawaay bi ñu wone ci jafe-jafe parce que nit balaa ngay xam tolluwaayam jafe-jafe am jafe-jafe bi mu amee kenn footballatul kenn defatul activité sportive kenn bëreetul mais kenn caalitul ñëpp taxaw nañu ànd ak réew mi ànd ak njiiti réew mi ak gouvernement xeex li nga xamante ne mooy pandémie bi ba tey jii ñuy am yaakaar parce que vaccination ñëw na te ñuy am yaakaar mu gën a wàcc loolu nag bu fekkee ne am na dafay jaadu ñu sant acteurs sportifs yi ak mouvement associatif ci seen taxawaay muy ñëpp nag waaye lamb ji aussi nga xamante ne ñoom rek a commencé gul li nga xamante ne mooy compétition ñooñu tamit dinañ leen sant parce que li métti bi muy njëkkee ñëw. samedi bañ jël décision ca dimanche ba am na promoteur bu waroon tëgg te tëggul mais caalituñ dañ jël seen alal andi jël seen i matériel andi ba pare dugg ci sensibilisation tey nag bu ñu demee ba ñu xam ne war nañoo mën a delluwaat ci làmb ji arène ba peut-être duñ fa mën a def 15000 places waaye war nañ faa mën a def peut-être 8000 places loolu day nekk lu am solo moo war leen cee sant nag sant leen ci seen taxawaay mais sant leen ci seen woote pour jàmm am ci réew mi kon bëgg naa daal bés bi di ajuma ñu am ci ndam lu am solo ci taxawaayu football ci Afrique am ci lu am solo it ci li nga xamante ne mooy doxalinu réew mi ñu am ci it espoir bu juddu ci ñun ñëpp li ñu namm ngeen namm ko yenn presse sportive bi dellu ci jongante yi fekk fa kilifa yi muy am ambiance defe naa ne bu ñu toogee tey eh, yàlla won nañu ne àdduna ay neex la ak ay naqari li ñu njëkkee mooy perdre kilifa goo xamante ne jóge na fi muy nekkoon ku am solo ci gestion sport bul ci ci ci Sénégal ci même bi mu demee ñu ciy wax tey am nañu pal feneen boo xamante ne kon dañu war a am lecture philosophique de liy xew ci réew mi te ñu xam ne loo jëndee jàmm jàmm jàmm ko gën jàmm lañu ñu war a ñaan ci réew mi te mouvement sportif bi vertu yi ñu xam ci sportif mooy jàmm nañ joxante loxo liggéey pour développer suñu sport loolu laa bëggoon a wax maa ngi leen di sant leen gërëm waaye di rappeler surtout en français ce qui s'est passé parce que le Sénégal vient de retirer la participation de notre équipe nationale de handball au tournoi qualificatif de, des Jeux Olympiques qui se tient en Espagne parce que nous rentrons dans une autre phase de rationalisation de nos participations au niveau des compétitions internationales. il est temps que le Sénégal puisse réfléchir sur quelle, quelle, quelle compétition on participe. Il ne faut pas participer pour participer, mais il faut participer pour faire bonne figure, pour gagner. Nous avons un défi, c'est gagner la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Nous mettrons tous nos moyens pour arriver à atteindre cet objectif-là et ne pas éparpiller nos participations, ce qui nous rendra très faibles. donc maa leen di sant di leen gërëm wasalaam li ma wax ci wàllu euh, handball mooy dañoo toll nag waxtu woo xamante ne ak crise yi am ci réew mi problème économique yi am waratuñoo jóg rek lu xew rek ñu bokk dañu war di xool ci tàggat yaram li nga xamante ne bu ñu ci bokkee dina jàngal xale yi dara wala dinañ ci gañe lu bari su fekkee ne nag da nga am ñaar yoo war a participer te benn moom la sa kattan may da nga war a am lecture après concertation lan nga war a xam foofu ngay teg sa loxo loo xamante ne dina sagal réew mi waaye di nga mën a atteindre cet objectif. fédération handball nag ak équipe bi li ñu xalaat moom mooy dañuy dem ci compétition africaine te jëlaguñu coupe d'Afrique boobu. te dañu war a liggéey pour jël ko kon moyens yi ñu am yëpp dañ ko war a mobiliser pour accompagner créer les conditions de de participation les conditions de préparation à notre équipe nationale ba bu ñu demee ci tàggat yaram boobu wala ci compétition boobu ñu mën faa jëlee rawee wala ñu mën faa bégal suñu réew loolu moo doon kaddu yi jërëjëf.